féliciter équipe bi supporters yi ak staff technique donc féliciter waa dëkk parce que yombuloon championnat douze équipes la woon aller retour vingt deux matchs donc ñu joué si am si dix huit victoires Euh, dont deux trois nuls ak benn défaite donc jàpp naa ne performance bi ñu def si poule nationale 2 yëpp defe naa Guelwaar rek moo ko def donc di si sant yàlla mais di féliciter ñi nga xam ne ñoo liggéey ba ñu yegg foofu donc kontaan nañ ndamu Fatick la parce que espoir u Fatick defe naa at yi ñu weesu surtout ci côté football ñu ngi wone suñu bopp ñu ngi góorgóorlu ñu ngi si bonne voie bi et je pense que à l'image des équipes yi nga xam ne comme le jamono def nañu ay performance ba dem en Ligue 1 donc Guelwaar mu ngi ci yoon bi di ñëw looloo tax ñu ne nañu ñaax ñëpp daal pour que mu nekk victoire boo xam ne victoire yi waa Fatick yëpp la national une beneen niveau la bu bokkul ak national 2 donc dinañu gën a préparer waat gën a renforcer waat no effectifs pour que national une bi aussi ñun nëbbatuwuñ équipe buy door a yéeg la waaye suñu objectif déwén mooy ñu yéeg bañ fa taxaw donc dem Ligue 2 loolu mooy objectif bi te ñu def lépp dinañu jël disposition yëpp pour que incha allah heure bi déwén ñu mun a ne Guelwaar jóge na nationale une mu ngi Ligue 2 et loolu mooy liggéey bi booy xool suñuy t-shirt loolu lañ ci bind pour wane que ne Guelwaar équipe bu am ambition la nekkuñu ci football bi pour def figuration donc dañ ci nekk parce que dañ ci am ay ambition am ay ambition jaay ay jour mais aussi am ay ambition euh, Conte nekk équipe yi gën a bokk ci équipe yu mag yi nga xam ne ñu ngi ci football professionnel Sénégal donc loolu mooy suñuy ambition nëbbatuwul pour dire que liggéey bi léegi lay door parce que national une benn at lañ fa bëgg def pour dem Ligue 2. ñu gën a rek parce que sport moom dara yombul euh, wax leen jour yu mel ni Sadio Mané nii la ñu démarré ba yegg fi ñu yegg donc nañ leen di gën a ñaax. Euh, kontaan ci li nga xam ne def nañ ko yëpp daal ba équipe bi yegg si fii euh, félicité waa Fatick parce que Fatick quand même heure bu EGF amee match ñu ngi ñëw jàpp jamono am match ñu ñëw jàpp euh, KN am match ñu ñëw jàpp Gelwaar même chose mun naa ne population yi si stade bi lañu la ñu dëkk donc ñu ngi leen ciy félicité mais aussi jàpp naa ne loolu moo indi résultat équipe bi aussi man Mamadou Diouf nekk euh, vice président au niveau de la ligue régionale de Thiès mais aussi nekk président FC Toglou de Thiès. très bon match quand et une victoire amplement méritée pour Guelwaar su ñu waxee dëgg rek c'est une victoire amplement méritée parce que Guelwaar ku leen xam xam ne c'est une très bonne équipe. une équipe qui est très bien organisée une équipe boo xam ne aussi depuis le début du championnat wane nañ seen bopp. kon tey jii too door Toglou 3 du donc match bi c'est un résultat qui a reflété exactement la physionomie du match mais terewul tey match bi tey man naa wax ne match boo xam ne dañu doon àggale saison bi rek donc euh, c'est la vingt deuxième journée boo xam ne moo tëj saison bi déjà on était qualifié déjà on était donc euh, on on on avait validé notre montée à la nationale une avec Guelwaar ñu topp ci ñoom donc euh, Damels moom moo gagné démb Mama Gueye aussi mu toppa ci troisième équipe boo xam ne monte nañ donc ST Toglou de Diass ñëw nañu Massène Sène bokk ak Guelwaar yeeg dañuy ñaan yàlla déwén ñu ñu bokk ensemble suñuy dem Ligue 2 ñu bokk ànd ensemble. parce que c'est une équipe boo xam ne vraiment mérité na place am foofu comme ñun comme les autres équipes tey jii nag euh, football loolu la soo mënee équipe wala soo nekkee ci sa temps fort da ngay réaliser on a raté beaucoup d'occasions ils ont été très efficaces devant les buts la victoire a été donc très belle pour pour pour pour man nag cette fois-ci je vais pas dire euh, duma duma duma duma duma teel a afficher sama ambition parce que j'ai été victime j'ai payé donc euh, les les les pots cassés daaw donc euh, vous n'êtes pas sans savoir que ST Toglou de Diass daaw jéeg mu ngi woon en national une yeggoon nañu une saison lañ fa def ñu wàccaat en national deux donc on doit prendre apprendre donc de, de nos erreurs jéem rectifier ba xool cette fois-ci naka la ñu def ba jéem a euh, maintenir équipe bi avant tout jéem a maintenir équipe bi au niveau de la nationale une jéem a liggéey une saison deux saisons soog a revoir nos ambitions. parce que soo defee erreur warootoo ñëw refléter les mêmes erreurs tey jii nag ëpp solo mooy ñu continuer le travail xam ne on est à la nationale une te la nationale une c' est très compliqué c' est l'antichambre donc de la ligue professionnelle et la ligue amateur. donc ñun suñu fa toogee tey je crois que la war a nekk suñu liggéey mooy nak la ñuy def mais loo xam ne moom la ñu amoon en tant que acquis ñu mën ko consolider la xam ne woon aussi moo nekkoon suñu faiblesse suñu jëm ko renforcer su ko defee ñu mën xool exactement naka la ñu ma def ba suñu yàlla dogalee ñu dem ci Ligue 2 mu nekk ci façon boo xam ne aussi du ñu am yenn jafe-jafe yi. bon lu ma leen di lancer comme message rek ñu gën a góorgóorlu xam ne sport aussi activité boo xam ne tey jii mën nañu wax ne am pourvoyeur d'emploi la. sport aussi dafa war nekk loo xam ne day fédérer ay ay relations yu bëri entre les gens la jeunesse aussi tey ji ku ne soo leen gisee rek nga xam ne dañoo bëgg sport ñun nag soo gisee aussi ñu ci sacrifier suñu bopp yëpp bëgg a jàppale jeunesse bi rek moo tax tey ji SC Toglu Dadiès ren on a fait des pas de géant au-delà de loolu ñu ngi trouver ay ay partenaires yoo xam ne ñu jàppale mais aussi la xam ne aussi laajoo ma ko te moom laay profité la wax ko fii mooy au niveau de notre localité on regorge d'entreprises on a l'aéroport on a les cimenteries du Sahel et tey jii moom damay wax ne la xam ne moom nuñ ko xam nuñ ko scoop bi scoop bi on joue avec Gelawar qui porte des maillots estampillés Kirène alors que on nous on ne peut même pas bénéficier de l'appui de Kirène un franc musuñ ko am ci Kirène sa vraiment c'est déplorable loolu moom vraiment tey dama am gàcce société bu toll ni Kirène tey solal Gelawar ba fii ce sont des comme nous tous ils méritent ça mais tous nous que ñu soutenir ñu un tout petit peu laajuñ leen dara lu dul un petit appui un petit mécénat ñu mën a accompagner équipe bi. tey équipe bi ils ont voyagé avec un bus tout neuf boo xam ne man ak sama partenaire maa ko lijjanti ma indi ko. lijjantil naa leen temps yi am na benn kii boo xam ne jënd nañ ko mu ngi liggéey di am lu xam ne mu ngi koy indi donc euh, c'est nous qui faisons donc tout pour que équipe bi mën a dox on a alors que on a tout à on manque absolument de rien du tout. on a l'aéroport on a futur port de Ndayone on a la zone économique spéciale yooyu yëpp ñu ngi ñun on a la cimenterie du Sahel on a la société Vanners on a Kirène tey mu ngi solal ba Guelwaar bi Fatick Fatick dóor ñu 3 ñu war a delluwaat ci ñoom xam naa nag dootuñu naan seen jus dootuñu naan seen seen ndox dañu leen di gedd complètement parce que amaluñu benn njëriñ parce wax dëgg si yàlla il nous aide pas il zéro tey jii nag maa ngi lay bu baax di a a jàppale donc euh, seen rakk yi parce que am nañu ay Sadio Mané am nañu beaucoup de professionnels au niveau international te ñoom ñëpp on les a soutenus c' est l' occasion aussi de féliciter euh, Ngom Niang le président de Galawar ko xam ne mu ngi liggéey liggéey bu rafet aussi ci équipe am ku ne gis na ko xam encadré na équipe am donc euh, ñun ñoo toogoon sànq il est en train de faire de belles choses vraiment ñu koy gërëm di ko féliciter di ko encouragé bu